Euh, maa ngi tudd Angel Kouyaté euh, sama tour artiste sama tour dëggantaan di Cheikh Kouyaté doomu Tamba judo pont magee plateau donc nekk euh, comment dirais-je artiste boo xam ne tey jii moo ngi représenté Tamba au niveau national parce que ñoo ngi dëgg la ñoo ngi génn di dem lijjanti pour Tamba la aussi quoi di dem créer di def ay projet pour Tamba la donc den benn instant je pense que ñun drapeau Tamba moo ñu moo ñu tax a jóg drapeau Tamba la ñuy représenté quoi. contentement quoi contentement benn instant mu naa sax benn rêve bu ma réaliser la quoi donc lii yàgg naa ko rêvé toog tamit ay journaliste di ma interviewé. Euh, ci benn business boo xam ne ci côté musique la ma réaliser ko donc c' était rêve la boo xam ne tey ji mun naa wax ni d'une part réali am na li ma si jot a réaliser donc te mission bi day continuer contentement laa ci am ak fierté surtout le fait que ma def suma projet album ba pare delluwaat ci sama région def ay conférence de presse indil projet bi gars yi ñu découvrir ko donc loolu c' est c' important pour moi quoi kontaan naa ci trop donc euh, la moo ma inspiré genre euh, lu tax Dieu de cœur comme ni ma ko waxee rek maanaam concept la boo xam ne doo ko xool ci sens propre bi quoi waaw doo ko xoolee ci sens propre bi du du ni nga koy dëggee la exactement quoi donc comme xaw ma nañu koy expliquer ci olof sa au nga koy nga koy nga koy xoolee ci concept boobu noonu mais da nga koy maanaam cœur bi dafa am lu muy symboliser mooy lan mooy mbëggeel tey jii euh, loolu lañ koy gën a gisee quoi maanaam man dama bëgg gars yi xoolee ko bët boobu noonu maanaam album bi amul leneen lu dul mbëggeel quoi maanaam mbëggeel lay symboliser mbëggeel lay wax tey donc c'est juste un peu ça moo taxit moo ñu gën a poussé ñu tuddee ko euh, euh, Dieu de cœur quoi mooy Dieu de l'amour quoi en quelque sorte mais doo ko doo ko dëggee ci ci concept Dieu de cœur bi mais plutôt Dieu de l'amour quoi noonu lañ koy xoolee donc boo seetee titres yi yëpp ça parle d'amour dañuy wax ci mbëggeel mbëggeel ci xaalis mbëggeel ci euh, ci der bu ñuul mbëggeel ci Africa xam nga mbëggeel ci yaay donc euh, c'est c'est un peu ça aussi. bon jafe-jafe yi bëri na comme ni ma ko waxee surtout ci côté financier côté koppar donc benn instant loolu da ciy bokk mënoo def musique te amoo xaalis donc loolu c'est important parce que musique investissement la da nga ciy nekk da nga ciy dugal xaalis. donc da nga ciy dugal xaalis pour communication da nga ciy dugal xaalis pour yow def say vidéo da nga dugal xaalis pour sa say say science de de de de de enregistrement donc loolu jëb métti na benn instant quoi te ba soxla nañ soutien tamit quoi mooy lan autorité yi di ñu bàyyi xel. di bàyyi xel ci lu ñuy def tamit ñu ngi leen di solliciter ñu gën a jàppale jeunes yi ci côté boobu noonu gis nañ ni carrément gars ñu ngi yëngu ci côté boobu te c'est positif tey ji gis nañ ay dëkk yu bëri ay artistes yoo xam ne tey bu ñu waxee gars yi dañ leen di déglu gis nañ fi kër gi bu kaw la tey jii ñu ngi yëngu ci ay business yoo xam ne ñu ngi def ay social def di xeex ci ci comment dirais-je ci ay affaires yu bëri yu yoo xam ne tey jii mu ngi mu ngi am ci suñu dëkk bi Sénégal donc loolu c'est important ñu ngi ñaan yàlla ñu tamit Tamba am ay porteurs de yoo xam ne tey jii bu ñu waxee ñëpp dañ leen di déglu au niveau national donc c'est un peu ça mooy mission bi donc pour loolu nag foog gars jàppale ñu ñu mën a dem egg niveau boobu noonu niveau boobu noonu yombul ñun kese suñu jëm bopp duñ ko mën a duñ ko mën a buñ ko naree réaliser sax day jël temps quoi li ñuy def nit ñi ñu ñuy bàyyi xel am nañ ab nit yoo xam ne tamit bëgg nañ ci li ñuy def donc gars yi ci gën a jàpp soutenir artistes yi quoi ci lépp lu ñuy def mooy maanaam tey ji bu ñu naree gën a dem defi suñuy compétition gars yi ci jàpp bu ñu naree génnee ay projet gars gis ko bu ñu xaar ñun ñuy ñëw gars yi ci jàpp donc loolu dina tax tamit ñu gën a mën a suuxal musique bi ñuy def donc acteur culturel comme ni ma ko waxee rek gars yi nañ nañ booloo doon benn quoi nañ booloo maanaam mbooloo mooy daan quoi te loolu mooy différence bi ci ci ci ci ci ci comment dirais-je la région de dakaar maanaam foofu gars yi dañuy sot dañuy dañuy booloo seen doole par rapport ak fii quoi maanaam c'est day des tuuti maanaam da ngay gis loo xam ne yaa ngi koy def sax. kenn nga nga xam ne tu te sens concerné quoi yaa ngi ci biir parce que boo demee ba ne man acteur culturel laa rek war nga gis dara loo xam ne tey ji même buñ la ko yëgalul yow war nga cee mën a gis sa bopp tamit def si sa wàll sans nit ñi wax la ni defal lii defal naa te ñu ngi gis am na ñoo xam ne ñu ngi koy dox ñu ngi koy def euh, à l'occurrence tey ji boo jëlee waa Jeune Estime noonu la suñu frère Laika moo ngi jàpp si suñuy projet cover yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy def moom moo koy def moom moo ñu koy defal donc mooy loolu tey ji gis nañu ay Ibu tamit ñeneen ak ñeneen ñi ngi jàpp si business bi donc loolu c'est important important quoi soxla nañ loolu gars yi soutenir ñu ndax ñu mën a wane lu ñu mën tamit quoi c'est important. d'accord ñu ngi lay gërëm di la sant. merci beaucoup c'est gentil. merci.